avance par rapport ak yéen ñi nga xam ne yéen a nekk. ci kudé par rapport à ces élections. bon c'est normal ah man damay jàpp ne ñoom ñoom am nañ longueur d'avance ça par rapport euh, aux autres ça moom il faut le dire. parce que xam nga soo yoree appareil état yor lépp cest avant dire avance fi am. ak ñeneen ñi du benn. parce que parce que par exemple ñi nga xam dañoo pour déjà teg coalition dafa metti Euh, dafa métti euh, déjà pour problème liste yeeg nangam nag position yi xëccoo bi. Euh, mhm. donc c'est un peu compliqué. mais alhamdulilah mooy li ma souvent rek ba yàlla may nit yi dal. ba mhm. nga xam ne nii doo dëggoo fi ay xëccoo. Mhm. nit yi lu leen intéressé mooy dem taxawal askan bi ci penc réew mi. loolu mooy premier aspect bu ma xam ne ni moom laa si jàpp xam ne ni c'est positif en tout cas coalition Wareef si taxawaay boobu la nar a nekk allahu rabbi d'accord euh, coalition Wareef boobu certainement nuñ ci ñëw monsieur Cissokho balaa ñuy euh, yëkkati li nga xam ne moo